asalaamaaleykum mbokk yi déglu Rewmi FM 97.5 dalee na jàmm ci seen émission SOS santé ñu am mbégte di ci ànd ak yéen àjjuma ju jot lu ko dalee 18h jàpp 19h ci la 97.5 ñu am mbégte tey di dalal ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Loum di njiital ñi nga xam ne rek euh, maanaam association bi boot ñi nga xam ne dañu amee feebar bi di euh, hémophilie Abdoulaye Loum ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di yëpp. Mhm. Euh, di la jaajëf ci sa disponibilité. jërëjëf man maa leen di maa leen di jaajëfal ci invitation bi. Mhm. ak ci ngeen ñu mën a waxtaanee lii voilà donc Abdoulaye Loum yaa ngi nekk njiital asociation bi ëmb ñi nga xam ne dañoo amee feebaru hémophilie mën nga ñëw un peu ci histoire association bi. d'accord donc hémophilie. Euh, euh, ñi ko ni nga ko gën a xamee mooy feebaru deret la daal maanaam sa deret dafay am jafe-jafe pour mu way maa ngi bu may wax way mooy tey boo boo daggoon deret bi dafay dafay walte pour mu arrêté dafa am benn garab boo xam ne moom nga war a jël te moom da koy piqûre mm-hmm. loolu boo ko deful amaana dina arrêté mais pour mu arrêté dina jafe torop Mm-hmm. donc li ñuy li ñuy gën a digal daal mooy ay dagg-dagg yi te mën na nekk sax dagg-dagg parce que mën nga nekk di nàcc sa biir yaram. Mm-hmm. loolu tamit dafay faral di dal loolu bu amee li ñuy digal mooy nga dem jël garab boobu parce que garab boobu moo manqué si sa suñu yaram ñun. Mm-hmm. ba tax na tey bu ñu amee dagg-dagg wala nàcc nàcc suñu biir yaram du du taxaw wala du gaaw a taxaw tànk jëloo garab boobu. loolu la. voilà tey association bi lan nga ñu ci mën a wax histoire association bi. waaw association bi ñu ngi ko ñu ngi ko suñu yaay yeeg suñu papa yi ñu ngi ko sos si ay années quatre vingt dix ah. Mhm. année quatre vingt dix association bi li ko tax a jóg tey mooy lu njëkku mu dajaloo ñi nga xamante ne ñëpp dañu am hémophilie bi ci topp mooy ci sensibiliser di waxtaani hémophilie parce que dafa nekk feebar boo xamante ne ñu bari xamuñu ko nekk mhm. feebar boo xamante ne ñu bari xamuñu ko te da ngay gis des fois nit ñi dañ koy am dem hôpital des fois surtout ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaw gi du ñu am information bi nga xamante ne moom lañ war am ba niñ ko war a jëlee duñ ko jëlee noonu ba mën na indi ay ay ay jeexi jaaxa mhm. donc ma ma ma ma la benn cas bu ñu xamante ne parce que dañu am benn groupe bu ñuy waxtaanee mhm. ku ñu ko benn benn papa xale ma xamante ni moo ko doon expliqué ci lu ko dal lu mhm. parce que moom dafa amoon ñaari doom yu góor moom ci kaw gi la nekk mhm. ñaari doom yu góor la am mu xarafal leen ci benn ci même même jour bi mhm. ñoom leen xarafalee ci même jour bi xamuñu woon ne dañu am hémophilie donc ñoom ñaar ñuy nàcc ñuy nàcc te ñoom ñaar ñëpp amee woon hémophilie ñoom ñaar ñëpp amee woon hémophilie ñoom ñuy nàcc ba yàlla mi dara teewul noonu la leen jëlee ñoom ñaar ñëpp ci même jour bi mm-hmm. Mm-hmm. te say si say ay loxo pap lañu lañu lañu la ñu génnee àddina mm-hmm. donc loolu dalay wan ne tey affaire bi ni mu graawee ak ñun liggéey biñ nekk ci def mooy maanaam sensibilisation di ko waxtaanee ba mu mën a àgg fépp parce que des fois sax di nga dem ci yenn hôpitaux yi mais léegi sax mi ngi commencé wàññeeku parce que ak sensibilisation yi waxtaan ñi ñu ngi koy gën a farataal li ci gën a wax mais bu njëkkaan boo musaan dem duñ la war a jëlee soit duñ la ko jëlee wala dañ koy ragal duñ la duñ la mën a jël. Mhm. moo tax ñoo ñoo association bi buñ ko sosee boobu ba léegi ñu ngi dox si lool ci waxtaan ak nit ñi ñi gën a xam feebar bi ñi ñi xam ne existe na mi ngi fii ci ci dëkk bi te neewu ci dëkk bi rek mi ngi ci àdduna bi yëpp. Mhm. Euh, voilà yow yaay président association bi depuis kañ nga nga jiite association bi. waaw man maa ngi ci association bi depuis deux mille dix huit. Mhm. deux mille dix huit laa jël association mais avant may nekk njiital bi maa ngi ci woon membre laa ci woon actif. Mhm. di bokk ci sensibilisation ak lépp loo xamante ni dina mën a tax hémophiles yi mën a gis seen bopp ci faj meeg. Mhm. parce que li nga expliqué léegi euh, kooku nga xam ne moom way jur la ñaari doomam yu góor ñu xarafal leen ñu génn àdduna te mhm. pourtant day ci euh, recherche yu ñuy jot a def gis nañu ne hémophilie maladie héréditaire la mhm. donc ça veut dire que euh, mun nañu ne way jur boobu teelul xam ni doomam yi dañu am feebaru hémophilie du wax teelu ko xam daf ko xamul woon xamu ko woon parce que mën nga ko am mais comme du maladie bu siw donc dafay jafe pour yow boo gisee mën nga gis sax sa doom tey bu bu amee nàcc ñaati mun yéex yéex a arrêté mais nga def say pexe ba mu arrêté mais dangay ngay jàpp ne dafa yéex a arrêté rek parce que mhm. xamoo ne xamoo ne loolu am na feebar bu mën a joxe loolu mi ngi noonu loolu mandarga feebar bi la mhm. loolu da koy da koy waral loolu moo ëpp sa loolu moo tax ci ëpp noonu noonu lay demee mhm. noonu lay demee surtout ci xarafal yeeg ak ak yenn yeneen anam yi nga xamante xale bi dafay dafay gaañu wala mu dal fenn muy naaj ci biir loxo bi di neewi. te xale bi moom foog mu foo di yëngatu. mënoo rek ko téye kenn xale moom mënoo ko téye bu mm. dee mag sax nga xamante ne mën nga waxtaan ak moom mu xam ne xale moom même boo ko expliqué ba mu dégg la booy waree ginnaaw te dellu ci ni mu ne woon parce que xale la xamul. Mm-hmm. tey boo xoolee ñoom ñoo gën a exposé ñoom ñoo gën a exposé parce que feebar bi non seulement du wér garab yi tamit euh, xaw na jafe-jafe goo xamante ne pour nga jot si mm, lu doy waar la. Mm-hmm. te ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaw gi tamit dafay dafay metti daal ci ñoom. dafay metti bi. Euh, mi ngi noonu. Uh-huh. voilà euh, ñu ñëw ci li nga xam ne mooy hérédité bi parce que quand même maladie bu xaw a doy waar la parce que ci ni ma ko comprendre papa moo koy jox doomam bu jigéen yaa jox ko doomam bu góor est-ce que mën nga expliquer loolu tuuti. waa ni nga ko ni nga ko firndelee loolu loolu leer na parce que lu ci bëri dañ naan ci góor lay feeñee waaye jigéen moo koy joxe. Mm-hmm. mais tamit il faut ñu xam ne jigéen googu ku góor moo ko koy jox. Mm-hmm. ba ba ba tax na tey euh, comme ni nga ko expliqué rek ah ni nga ko expliqué je pense que ne loolu loolu na jigéen mm-hmm. ci jigéen ci góor lay feeñee mais jigéen moo koy joxe mais ku jigéen ko kan da koy ci ci comme man tey su ma jëloon misaal ci man man man samay doom mën nañ ko duñ duñ mën nañ ko bañ a am mhm. mais bu ma amee doom bu jigéen mu am doom c'est pas forcé que mu am ko mais yaa de forte am na ay bari que mu am ko mhm. donc est-ce kon loolu day wone ni peut-être que ni euh, ñu jigéen ñi euh, du ñu développer la maladie wala du feeñ ci mais nag comme li tubaab di wax euh, l' exception confirme la règle tey boo xoolee ñun ci suñu association am nañ ci ñaar ñoo xamante ne ay jigéen lañu te am nañ ko. Mm-hmm. mais góor ñi daal ñoom ñoo koy gën a faral di am. waaw tey su ma jëloon tey euh, su ma jëloon téeméeri téeméeri téeméeri hémophile tey mën naa ne quatre vingt dix huit yi xam mënuñ koy waxee ci olof quatre vingt dix huit ci ñoom ñëpp ay góor lañu ñu doon. Mm-hmm. waaw ci misaal. Mhm. mu nekk lu lu doy waar euh, lu jëm ci wàllu sensibilisation bi yaa ngi koy wax sànq bëri na ci askan wi ñoo xamante ne euh, xamuñu feebar bi moom mooy moom mooy lan peut-être boo ci tombeek ñenn ñoo xam ne xam nañu ko sax dafay fekk ne peut-être ñooñu daf dafa am ñu leen jege ñu ko am wala peut-être yu yu demee noonu donc dañuy euh, déglu léegi benn reportage boo xam ne sunu naataangoo Memba Dramé def na ko ngir jéem a xool un peu tate askan wi seen niveau de xam-xam ci wàllu feebar bi ñu dellu siwaat hémophilie ab jàngoro la joo xam ni ku doy waar la bu dee ni sax ñenn ñi ñu ngay dog a dégg turu jàngoro bi ni mel jàngoro tey laa ko mës a dégg de xanaa de sama dégg de de wax dëgg yàlla tey laa ko mës a dégg waaw ah, waaw boobu feebar kay xamuma ko de wax dëgg yàlla ab doxantu ca koñu Castor yi foofu nag yenn sénégalais yi nag li ni mel lañu seetlu hémophilie xam nga ko. hémo hémophilie. je me xam nga ma ci hémophilie. parce que maladie héréditaire ah. kooku nag ma ci. amoo ci connaissance amoo ko dégg. Cheikh Ahmad Tidiane Seck ndaw la war a am lu toll ak fanweeri at lu topp mu ngi wax fii ana lan mooy hémophilie. hémophilie su ma koy wax dafa mel ni comme genre perte deret boo xam ne nii donc mooy lu ñuy wax genre pré prédisposition daal si wàllu hémorragie parce que hémorragie mooy perte deret perte deret ba xam ne soo ko déggee mooy dawatul normalement fu mu war a dawee donc mi ngi dawee au maanaam hors du du euh, di vaisseau sanguin donc moom daal foofu daal moom lay. mu teg si ne jàngoro ji nag jàngoro ju doy waar la ba tax na sax muy plaider ngir ñu jël jàngoro bi en charge gouvernement bi daal di koy appuyer. waaw lu metti la parce que lu koy waral boo xool mën na nekk si wàllum blessure mën na nekk aussi euh, maanaam deret bi si boppam mu am benn dysfonctionnement boo xam ne ni deret bi dootu mën a circuler normal bu ko defee donc day circuler hors hors du vaisseau sanguin bien li nga xam ne moom dysfonctionnement si yaram rek bien sûr la moom lu metti la. ba na prise en charge bi war nañ tout à fait ba tax na prise en charge bi day am. voilà déglu nañu ko mais gis nañu ne quand même défaut de sensibilisation bi mu ngi fii Abdoulaye donc tey jii yenn au niveau de votre association. yan euh, jéego yan action ngeen di mener yan activité pour euh, indi ay maanaam ay effort ci côté boobu waa ñun associ euh, effort yi ñuy def sensibiliser tey boo xoolee ñun association bi mu ngi mi ngi siège Dakar Dakar lañ nekk mais boo xoolee am nañ ay projet yoo xamante ne pour dem ci ci région yi la déjà am nañ cellule régionale Thiès am nañ Kaolack war nañ def beneen Louga Ziguinchor loolu rek pour mën a mën a tax ñu am fa ay nit yoo xamante ne dinañ ñu fa toogal information bi ñuy bëgg a jàllale dinañ ko jàll te te tamit ñu ngi utiliser lu bari réseaux sociaux yi lu ci mel ne Facebook Twitter. Mhm. bon di nga wax ne am na ñu bari ñoo xamante ne amuñu accès ci loolu. Mhm. mais loolu dafay daf ñuy permettre ñun ñu mën a am accès ci taskatu xibaar yi parce que am na taskatu xibaar yu bari yoo xamante ne tey dañuy jaar ci Facebook dañuy jaar ci Twitter. ñooñu mhm. buñ ci jotee ñoom tamit à leur niveau buñ koy relayer peut-être dina mën a àgg foo xamante ne ñun mënuñu fa àgg. Mhm. donc doxalin yooyu daal dañu am te tamit tamit dinañ dañuy lu yàggul dara organiser nañ ay journée de sensibilisation boo xamante ne dañuy woo ay médecins am nañ yoo xam dañuy ñëw waxtaanee ko. xamal nit ñi parce que li li li li ëpp solo tamit mooy il faut que yow mi feebar nga xam feebar bi ba boo koy expliquer keneen nga mën ko wax lu leer mun mun a dégg. Mm-hmm. moo tax ci loolu lañuy dox dañuy organiser ay journée de sensibilisation organiser nañ ci ñaar fii au niveau de Santès daaw defoon nañ benn au niveau de Kaolack pour def sensibilisation waxtaan seen nit ñi ñu ngi utiliser réseaux sociaux yeeg yëpp pour mën a. Euh, jàllale information pour que ñu ngi mën cee jot. Mhm. gis nañu ne wax nga ko léegi CNTS centre national de transfusion sanguine yéen bokk na ci bërëb yi nga xam ne yéen daanaka fa ngeen fa lañ leen di toppatoowee ci lu ci mhm. ci lu ci ëpp. Euh, mhm. dem na sax ba peut-être des fois ñenn ñi mun nañu jaawale lii di hémophilie ak drépano parce que dafa fekk ne yëpp feebaru deret la te fa ngeen di fajoo lu ci bari. Mhm. mën nañ ne benn la mën nañ ne du benn parce que lépp yëpp feebaru deret la comme ni nga ko expliqué. Mhm. mais lu ci mën ci xam rek am na différence tey boo xoolee hémophilie ñun comme li ma la ko expliqué sànq hémophilie problème mu nàcc nàcc la. Mhm. drépano du du du problème du problème boobu. donc loolu mooy différence mais li li mooy. lépp ci même ci même ci même catégorie bi la parce que lépp ay ay ay problème de problème mu deret la ak yooyu mhm. voilà léegi euh, au niveau de CNTS. Euh, mhm. ban apport la ñu am ci seen wàllub euh, faju bu weesoo li nga xam ne moom mooy peut-être prise en charge beeg deret beeg yooyu yan yeneen apport lañu am par rapport ak ñi nga xam ne dañu am fidi bon mën mën naa wax ne tey ci li ma xam man ci li ma xam man. Euh, docteur yi nga xamante ne peut-être am nañ lu ñu lu ñu lu ñu xam lu lu bari ci hémophilie tey synthèse lañ nekk. Mhm. synthèse lañ nekk li koy waral mooy tey parce que ñun dañu am kuréel boo xamante ne moo ëmb moo ëmb dëkk yi nga xamante ne am na hémophilie ci àddina bi yëpp mooy fédération mondiale des hémophiles. Mhm. donc fédération mondiale des euh, dafay tànn ay dëkk yoo xamante ne dafa naan tànn naa dëkk bi pour am fa centre de traitement. Mhm. te tey synthèse au niveau de de de l'Afrique ci liman xam Sénégal ak Afrique du Sud lañu am ay centre de traitement de l'hémophilie te synthèse mooy centre de traitement de l'hémophilie bi bu Sénégal. Mhm. donc moo tax tey maanaam la euh, ñi ci ñi ci ëpp li ñu xam ci bon ci li ma laa ko mën a waxee ci hémophilie tey fii lañ parce que fii fii lañ ñuy suivre. fii la ñuy defee dépistage ba xam ndax am nga hémophilie wala hémo hémophilie. Mhm. tey facteurs yi nga xamante ne moom la ñuy jël pour piqûre ko pour deret bi mën a arrêté tey bu ñu ko parce que bu ma fàttali ne dañ ñu koy may. Mhm. bu ñu ko mayee fii lañ koy recevoir fii lañ koy jëncee donc ñun bu ñu soxlaa rek fii la ñuy ñëw. Mhm. facteur yooyu yaa ngi wax sànq dafa cher lu ci bari. Mm-hmm. lu ci bari suñu suñuy discours synthèse ngay yéen ngay gën di dégg parce que synthèse moo ëpp ci li ñuy ñëw. Mm-hmm. naam sax ak ak euh, cellule régionale yi ma wax sànq ak collaboration synthèse ñu ngi jëm di xool parce que tamit nit koo xamante ni dagg na di naaj nga koy jëlee région ba région pour mu ñëw Pikine dafay jafe. Mm-hmm. ñu ngi xool naka la ñuy yóbbuwee garab yi au niveau de cellule Thiès hôpital régional de Thiès hôpital régional de Kaolack ak yeneen bërëb. pour que mu gën leen jege ñu bañ di déplacé ñu bañ di déplacé. Eh, yaa ngi wax sànq facteur yooyu dañ leen koy may wax nga au début que ni facteur yi dafa dafa cher pour métier am en général ay ñaata yooyu lay lay lay jaar. bon ah, bu ma bu ma jëlee misaal tey parce que am na benn année boo xamante ne dañu am benn dotation wu neuf millions. Mhm. neuf yi pour jëndoon garab bi la garab yi bi ko jëndee vingt et un flacon la ñu am. Mhm. te vingt et flacon yooyu tey mën naa ne. benn nit rek mën na ko consommer. Hmm. donc boo defee rapport bi vingt et un yooyu ci neuf millions boo xoolee ni mu lay dikkee xam nga dina dina dina dina dina dina yéeme loolu. dina dina loolu kenn mënu cee jot. waaw mi ngi noonu tey bu ma la ko bu ma la ko daf lay dikkee quatre cent vingt huit mille daanaka. Hmm, hmm. flacon boobu noonu ta tey garab bi boo koy jël sa âge dafay compter sa pois dafay compter. Mm. yow boo waree jël mille cinq cent unités xam loolu euh, te garab bi li ci li ci gën a doy waar mooy garab bi benn fan ba ñaari fan lay def sa yaram. d'accord. dootul amati effet donc day day dafay tax loolu il faut da ñëwaat jëlaat. Mm. donc boo defee rapport bi par rapport ak loolu gis nga garab gi ni muy ni muy te ñu ci bari tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci àll bi seen loxo jotul seen ginnaaw noonu ba tax na. mi ngi noonu daal. Mhm. am na tamit kuñ ci jox kuñ ci jox kàddu aussi muy euh, Anta Sarr nga xam ko bu mhm. baax mu nekk aussi jigéen bu jàmbaare boo xamante ne dafa yëngu bu baax ci wàllu hémophilie moom ñëw na ci mhm. jafe-jafe yi nga xam ne vraiment ñi ko amee ñu ngi koy jànkonteel dañ koy dellu déglu daal di dellusiwaat. soxla bi ñu am mooy facteur anti-hémophilique yi nga xam ne moom la ñuy fajee euh, xale yi bu ñu amee nàcc nàcc ci seen euh, tànk yi wala seen jojjoor yi wala seen conc yi wala yoo xam ne mi ngi ci seen biir yaram tey gisuñu ko loolu daal bu fekkoon ni woon gouvernement bi wala assemblée générale mën nañu voter loi boo xam ne ñu defal euh, kii jox xaalis boo xam ni jox ko PNA pour ñoom ñu commander facteurs yi facteur anti-hémophilique yi noonu lañ ko mën wax waxee ñun facture sa PNA commandé woon na ko mais ñun mënuñu ko jënd ndax facture benn bu ne trois cent mille francs lay jar xale bi su feebaree wax nañ ko defal ñaari euh, piqûre piqûre bu ne dafay nekk euh, trois cent ñaari piqûre yi six cent mille francs loolu mooy suñu daal mbébét boo xam ne buñ si taxaw woon yàlla dinañu dimbali ba suñu malade daan leen mën faj daan mën jël ndax léegi liñ leen di faje dañ ñu koy may bureau mondial euh, fédération mondiale de l'hémophilie bi nga xam ni moo nekk ci àddina bi yëpp moo ñuy may ay facteur waaw donc bu ñu mayee facteurs yooyu mu ñëw ñu def ko jox ko xale yi yenn yaa ngi sans transfusion yi si des mi ngi Thiès ak euh, Saint-Louis ak euh, Kaolack dañuy def ay antenne régionale léegi dañu yaatal yëf yi yóbbu ci région ba xam ne nit ki su ko jotee bala muy ñëw ndax kuy nàcc euh, mën nga si mën nga si loru moo tax ñu yóbbu ko ci région ba xam ni yow boo amee benn problème si sa nàcc nàcc rek si affaire feebar bi dañ lay defal injection bi ba pare dañ lay piqûre piqûre ñu soog indi central wala ñu di yóbbu ci hôpitaux yi waaye di sargal itam suñu eh, professeur Saliou Diop bi nekk centre national de transfusion sanguine mooy directeur bi ak personnel ci liggéey bi ñu ngi toppatoo hémophilie ak yëpp ak suñu yi fi nekk si Sénégal ak ci bitim réew. voilà ñu gis ne kon donc Abdoulaye li nga waxoon rek lool Anta Sarr daal di confirmer mooy wàllub facteurs yi jafe-jafe yi ci am est-ce que tey yaakaaroon peut-être eh, autorité war nañu peut-être euh, jàpp jàpp ci mbir mi daal côté subvention ak yooyu. Ah, eh, nga nga may ma ma ma ma ma gërëm suñu maman jooju nga parce que mhm. ci maam Famba maam fondatrice la bokk. dëgg la te boobu ba léegi bàyyiwul. dëgg la ñu jàppale fu ñu ko soxlaa mi ngi ñëw bien que mag la. Mhm. moo tax eh, ci ci sama tur daal dama fi yëpp ñu koy gërëm di gërëm mhm. parents yëpp tamit yi nga bàyyiwuñu. léegi ci sa question. da mhm. nga ne ndax yaakaaruma ne euh, autorité yi war nañ ci jàpp. yaakaaruma ko autorité yi dañ ci war a jàpp. Mhm. dañ ci war a jàpp parce que tey lu mu bon bon bon ñun ay sénégalais lañ. Mhm. ñun Sénégal fii la ñuy dañoo bokk ci ñi nga xamante ne ci ni ñu war a jël en charge la ñu bokk. tey boo xoolee ñun bon. Eh, feebar bi prévalence su un sur dix mille na tey boo xoolee. Mhm. su on est quinze millions ci Sénégal te buñ doon xayma hémophilie ñi ngi xayma ci euh, mille cinq cent. Mhm. te actuellement li liñ ci recensé gum matagul sax trois cent. Mhm. donc loolu da lay war ne da lay war ne tey bon ñu ci jéego yi nag pour jéem a xoolaat ba xam ndax ñu nekk ci àll beeg yooyu mën leen a identifier. mais tey loolu rek. war na war na leen pour jël en charge feebar bien bien vrai que garab gi cher na gouvernement bi war na koo mën a def parce que mën na ko def. Mhm. moo tax dañuy dolliwaat di ko ñaax comme ni nga ko daan ñaaxee année yi ci topp parce que boobu ba léegi ñu ngi ciy ñu ngi ciy wax tamit bien vrai que dugal nañ ko ci liste médicament d'urgence yi. Mhm. mais prise en charge carrément concrète bi ba léegi lañ ci amul lu ñu leer. Mhm. amuñu si parce que ba léegi garab yi Euh, fédération mondial lu ci ëpp moo ñu koy may amoon na benn stock boo xamante ne jëndoon nañ ko jëndoon nañ ko autorités yi jëndoon nañ ko mais problème bi moo doon luñ ci jotee. Hmm. donc euh, ñu leen ci ñu leen ci ñaaxal bu fekkee ne ñu ngi ñuy déglu ñu gën ko gëstuwaat ndax ñu mën ñoo xam ñu mën a xam tey ñu jàpp lañu pour que ñu garab yi muy mën di disponible parce que ki lay may tamit bu xëyee ne la mënatuma laa may. mënoo ci dara. Eh, te nga xamante ne ñun garab googu rek la ñu am te doo du ordonnance bi lay bindal nga jënd ko pharmacie wala leneen bu boobaa mm-hmm. ko amoon moom suñu suñu ñàkk suñu na si. Mm-hmm. Euh, yaa ngi koy wax léegi d'ailleurs tontu na ci euh, sama question ma bëggoon poser dama bëggoon xam en fait ndax euh, facteur kese ngeen di jël comme comme garab tontu nga ci léegi donc ça veut dire que ne mm-hmm. boobu moom kese fu mu toll nii moom ngeen mën a jël kom médicament pour mën a daal mën a am tan te léegi kon mun nañu ne prévention kon bi ci gën maanaam am solo moom mooy éviter di blessé wu te loolu comme ni nga ko waxee au début dina xaw a tane tuuti ci mag mais ci xale dafay difficile soo ci xale moom dafay dafay dafay métti parce que des fois nga ñëw ñu woola am na benn hémophile bu fi nekk nga ñëw gis mu nekk xale boo laajtee ñu ne la da doon foo moroom ñu sànni ko xeer mhm. wala da xeex wala da daanu xam nga loolu yëpp day doon loo xamante ne lu lu lu lu lu metti suivre doon ci xale. Mhm. xale yi daal ñoom ñoo ci ñoo ci ñoo ci gën a ci gën a ñëpp exposé nañ mais xale yi ñoom ñoo ci gën a fragile parce que da ngeen noonu parce que ñoom day il ñu foo mënoo leen tere foo. Mhm. bu ñu gisee seen morom yi di foo foog dañuy dem di foo te dafay doy waar daal topp xale yi daal moo ci moo ci gën a métti ci ñëpp. Mhm. mais métti na ci ñëpp tamit. voilà donc euh, may fàttali rek tey ñu ngi euh, sekk waxtaan ak Abdoulaye Loum nekk njiital association bi ëmb ñi dund ak feebar bi nga xamante ni moom mooy hémophilie voilà Abdoulaye ñu nekk ci nag période bu bu sensible moom mooy coronavirus bi ñu gis ne mhm. am na ay njeexital yoo xam ne am na ko surtout ci côté euh, wàll wàllu rupture de sang bi parce que mhm. waa CNTS génn nañ alerte ci def nañ ci émission fii d'ailleurs ci loolu ñu am ay problème yoo xamante ne bu ñu moywul dinañ dem ba wàllum deret sax mun na ñàkk euh, surtout que nit mhm. ñi dañuy ragal a dem ci bërëbu fajukaay yeeg yooyu euh, mhm. tey jii nii yéen wàllum maye deret bi tey ban solo la am ci ñi nga xam ne ñoom ñooy hémophiles yi euh, loolu hémophile nañu te suñu suñu suñu deret am na lu ci manqué loo xamante ne tey amaana boo ko amulee deret bi du way mhm. ci bari ñun duñ ñuy duñ ñuy permettre ñu ñu maye deret mhm. mais maye deret moom nag am na solo solo boo xamante ne tey da jàpp ne rek man dama jàpp ne boo jugee di dem di maye deret mhm. sa bopp nga ko may parce xamoo kenn xamul xamoo ku koy jëfandikoo xamoo sa bopp mën nga xëy soxla ko. Mhm. moo taxit di ci ñaax nit ñi rek ñu mën ci bàyyi xel ñuy dem di di di maye deret parce que nañ jàpp ne daal bu ñu jugee sol seen daal dem seen wala dem feneen maye deret. Mhm. nañ jàpp ne seen bopp lañ ko may parce que mën non seulement mën nañ ci euh, dimbali nit mu mucc waaye tamit bu ëllëgee xamoo yow sa bopp mën nga soxla. Mhm. nit def ne yow am même conscience euh, cas de conscience comme yow. def ni yow dem maye deret ñu utiliser deret boobu pour la mhm. donc nit ñi moom gaa euh, synthèse xam naa nag dina jël matukaay yi ci war yëpp ak ak feebar bi ñu am nii pour que éviter le bi nit ñi moom nañu nañu nañu nañu parce que am na solo trop trop day tax ñuy muccal ay ay ay bakkan te yow sa sax yàlla xamul mën mën na laa jëriñ Mhm. surtout ak weeru koor bii di ñëw koor gi gis nañu ne ñu bëri euh, lu ci bëri CNTS daraan alerté parce que koor gi euh, gars yi du ñu sawarati sax encore plus donc mu mel ni bu ñu moyul daal situation bu critique la na la na a jur mhm. euh, non parce que yàggul dara maa ci ciy dégg professeur Saliou Diop di ci wax ci ci ci rajo yi mhm. di sensibiliser waat ñun ñi gënaat xam naa ne nag boo moytu feebar bi la dañuy ragal comme ni ko ñëpp ragalee. Mhm. mais daal bu fekkee ne ne matukaay matukaay yëpp moom xam gëm naa ne santé dina ko jël pour que ñun bu ñu ñëwee di maye si mhm. ñu ñu mën ko defee ci anam yi gën a. gën mhm. en tout cas ñoom assuré nañ que ni sécurité bi amoon na fa waaye gën nañ ko yokk kon képp koo xam ne vraiment euh, dégg nga message bi war nga mën a dem maye ji deret sans aucun souci parce que comme ni nga ko mhm. waxee c'est sauver des vies waaye c'est mhm. sauver c'est se sauver même parce que xamoo ci kan lay dem un tey nit ki dina ko soxla bu subaa yow nga soxla ko donc nañ ci gën a noonu ci gën a bàyyi bàyyi xel bu baax gën a bàyyi xel gën ci farlu. Mhm. gën ci farlu mhm. journée mondiale de l'hémophilie célébré nañ ko mhm. fukki fan ak juróom-ñaar. ci weeru avril bi. <laughs> donc ñu def si taxaw seetlu ak euh, suñu naataango Jacques Gomis euh, ñu ñu dellu si waat. at mu yàlla sàkk fukki fan ak juróom-ñaar ci weerub avril ci la àdduna wërngal këpp di màggal bëccëg bi ñu jagleel xeex wopp bi di hémophilie li sabab bëccëg bi nag mooy sensibiliser askan wi ci jafe-jafe yi nga xamante ne wopp boobee dina ko indi waaye nga xamante ne moo koy jur ak lu jëm ci taxawaay bi nga xamante ne askan wi war nañ ko ci am li waral nag ñu taamu bisu fukki fan ak juróom-ñaar moo ni dafay méngoo ak juddug kii di François Schnabel ci atum moom québécois bi nekk ki nga xamante ne moo sos fédération mondiale de l'hémophilie moo tax ñu taamu bile bés hémophilie nekk ab maladie hémorragique bi nga xamante ne li koy faral di indi mooy déficit ci ab protéine de coagulation te ñuy bi muy tamit ab feebar héréditaire maanaam waajuram wala kenn ci ñoom journée historique bi tamit muy ab waxtu ngir fësal solo si nga xamante ne programme yi nga xamante fédération bi fësal na ko ngir jàppale bu baax communauté bi nga xamante ne ñoo amee yooyu les troubles coagulation programme bi jëm ci ndimbal gi nag te fédération bi di ko proposé mu aju ci wàllu formation ak développement soins intégrés yi naka noone lu jëm ci wàllu jumtukaay gi ak ñi nga xamante ne ñoo ci wàllu paj ci mën a a nemmeeku ci liir yi soog a juddu ci fukki junni yoo jël kenn ci ñoom dina ko am te feebar bi tamit amul xaaj ak seen ci kan la war a jàpp ci diwaanub Sénégal ñi ñu njort ni war nañoo laale ak hémophilie war nañoo toll ci wàññ ci junni ak juróom benn téeméer waaye ci lim booba yépp daanaka ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent rek ñoom la ñuy seetu seen wërgu yaram ca centre national de transfusion sanguine hémophilie di ab feebar bu métti bëri lu muy lor ci doomu aadama yi waaye teewul ba tey mu mel ni askanu Sénégal ñu bëri xamuñu ko comme méngale ak mbiru jinne te tamit ñuy faral di nemmeeku lu ñuy bedd ñi nga xamante ne ñoo ko amee moo ne de prise en charge bi maanaam paj mi dafa war a dox ci diiru dund ki ko am muy prise en charge bi nga xamante ne tamit dafay diis lool ngir famille yi waaye tamit ci bërëbu fajukaay yi. voilà ñu gis ne euh, célébration bi ren moom ak feebar bi nga xam ne moom mooy coronavirus célébration yi bëri daanaka dañ ko dañ ko daal euh, teg ci suuf le temps que euh, épidémie bi ja pandémie bi jàll. tey jii nii ci yeneen année yi yan yan ngeen doon def comme ay activité ak ay voilà ay ay manifestation ak yooyu. waaw célébration journée mondiale fi l'hémophilie nga xamante ne dañ koy dañ koy màggal ci ci ci dëkk yëpp. liñ ko daan defee mooy dañ daan organiser ay manifestation daje ci bërëb organiser organiser ko invité autorité yi bërëb boobu invité tamit ay médecins pour ñu waxtaan ci mm-hmm. def sensibilisation def caravane wër dëkk boobu waxtaan seeg nit ñi distribuer ay flyers mais at bii moom munu munuñu koon war ndax context bi ñu nekk nii mhm. te comme ñun comme autorité sanitaire yi prévenir nañ wax nañ jox nañ joxe nañ ay diggal donc munuñu woon lu dul topp mhm. ndigal yooyu parce que tamit euh, ndigal yooyu da ngay jàpp ne pour yow la waaye tamit pour keneen ki la mhm. donc euh, da aar sa bopp aaraale keneen ki moo mhm. taxit dañ ko def ci beneen formule boo xamante ne niñ ko defee mooy dañoo wax hémophile bu ci nekk boo ko mënee def benn vidéo bu ndaw mhm. wax ci hémophile wax ci pour sensibiliser nit ñi nag mhm. te dañoo insister sax te boo koy boo koy def wala fekk nga nekk sa kër bu ko defee message bi gën a jàll pour wañ nit ñi ne dañu war a moytu déplacement yu inutile toog seen kër di di topp tamit ndigal yi nga xamante ne autorité sanitaire yi ñu ngi koy def Mm-hmm. bu ko defee ñun ñu mën a ànd xeex euh, lii di mas di di Covid mm-hmm. euh, tey pour ñu dellu si tuuti ci li nga xam ne moom may feebaru hémophilie bi en tant que tel euh, bu weesoo peut-être tey nàcc nàcc beeg yooyu nit ki lan la mën a am comme ay signes wala peut-être loo xam ne daal mën na ko yëg ci yaramam mën na peut-être wane que ne lii nii day mën na nekk hémophilie. waaw posé nga ma question bu am solo nag. Mhm. parce que ñu ci bëri tamit comme ñu feebaru deret la dañuy jàpp na rek naaj naaj naaj naaj bi la. te mhm. sax naaj naaj bi la mais naaj naaj boobu dafay dafay ànd ak yeneen. Mhm. tey bu fekkee ne da dagg deret bi di génn loolu dañ koy gis na ngay gis na kii mi ngi naaj te du arrêté. mais tamit eh, il faut ñu xam ne tamit naaj naaj boobu li muy génnee ñu ni dañ ko gis mën na nekk sa biir yaram mooy lu ñuy waxee hémorragie interne. lu ci bari articulation yi lay dal lu ci mel ni óom bi lu ci mel ni conc bi ak yooyu donc bu ko bu commencé naaj da ngay gis ne dafay métit bi dafay commencé bi yokk mhm. dafay neer yi danay tàng donc anam yooyu ba pare tamit bu fekkee ne tey su ma jëlee misaal ne ci ci ci om bi la mhm. da jékki-jékki ni nga mënoon tàllalee sa tànk ko mënoon déngalee dootoo mhm. war na ne tey non seulement euh, naaj mi ngi mi ngi naaj te tamit néewi néewi boobu ak tàng bi muy tàng tamit dalay wan na mi ngi naaj ci biir. Mm. lu ci bari noonu noonu dañuy xamee ne yaa ngi yaa koy am. Mm. loolu tamit tey bu fekkoon ne piqûre nga ba mu arrêté séquelles yi mu mën am tamit mooy xam nga deret moom bu nekkee ci articulation day dem ba yàq sa articulation. Mm. mooy waral ngay gis ci bari ñuy ñuy wala tamit nga am problème pour tàllal sa tànk wala nga teg ko carrément. Mm-hmm. parce que da ngay dem ba euh, <coughs> ñu baaw mobilité bi nga amoon ci tànk bi wala ci loxo bi mm-hmm. da nga koy ñàkk doo soit doo ko mën a tàllal bu baax wala dootoo ko mën a ci banque bu baax mm-hmm. donc après dañuy dañuy wax ne loolu bu fekkee ne parce que li ci njëkk mooy nga arrêté naaj naaj loolu moom mooy li njëkk mooy li njëkk mooy li njëkk demee ba xam ne naaj naaj bi arrêté na nag ñu commencé di la defal rééducation pour que nga mën a récupérer li nga ñàkkoon loolu donc c'est pas facile à gérer et surtout côté social socialement dina mm. nekk lu metti nga war a peut-être dem liggéey yi dox say soxla dox say activité euh, surtout mm-hmm. côté euh, scolaire aussi ci ci xale yi loolu mm-hmm. day day day jafe bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. parce que tey booy nàcc rek li nga wax mooy warato bouger yenn bouger yi parce que bouger gi ngay bouger dafay dafay yokk nàcc nàcc donc da ngay obligé nga toog bu dee xale buy jàngi la tey Euh, mu toog une semaine deux semaines wala sax un mois bu ma jëlee tey si eh, misaal ci man. Mhm. am na benn année dal na ma dama toog ñetti weer jàngiwuma. Mm. ma toog ñetti weer jàngiwuma wala loolu bu fekkee na tey yow euh, man ni ma gënoon a may chance loolu sax may sama samay waa kër ak samay waajur dañ la doon ñaax. Mhm. sama ba nga mën a am capacité mentale boo xamante ni nga mën a dem àggale. Mhm. mais tey bu fekkee ne du ñëpp am chance boobu noonu mën na yàq njàngu xale bi. Mhm. te tey dañuy wax hémophilie nàcc nàcc bi mais dafa ci ci anam yu bari la. Mhm. tey nàcc nàcc bi lay commencé. nàcc nàcc bi bu commencé bu dee da ngay liggéeyi wala da ngay jànge dootoo mën a dem mën na tax nga perte lu bari ci sa année scolaire mën na tax bu fekkee ne fi ngay liggéeyee tamit comprendre wuñ ko loolu mën na la andil ay jafe-jafe sa liggéey. Mhm. loolu loolu bu weesoo tey problème articulation yi mu lay andil nga war a dem ñàkk ay mobilité si sa mënatoo mën a tàllal sa tànk bu baax wala mobilité boobu boo ko perte rek yow li nga mën a dem lijjantil sa bopp dootoo ko mën a dem lijjantil sa bopp da ngay obligé dépendant ñu mhm. mhm. taxit dafay am ay conséquences yu bari ci loo xamante ne buñ ko teelu jël en charge mën na la mën na la yàqal lu bari ci yow sa nekkin parce que tey bu fekkee ne da euh, perte sa mobilité si say cër li nga doon dundee doo ko dundee noonu da bu fekkee ne tamit da doon jàngi nga am perte ay jours yu bëri. Mhm. yu raw la dina métti pour nga dab ko waxuma sax mënta nekk mais dina métti lool bu dee tamit ni sa liggéeykaay la ñu amul compréhension boobu mën na la ay jafe-jafe yoo xamante ne dina doy waar daal. Mhm. Euh, euh, voilà yaa ngi wax sànq bu ngeen jotee recensé je pense ci début bi nga ne mhm. tollu toll nañ ci mille cinq cent ci l ci si j'ai bien entendu non prévalence bi bu ñu doon xool ci quinze millions d'habitants lu mu gàtt gàtt war nañ mën a décédé mille cinq que ñun on est trois cent nga wax ah waaw mhm. bi ñuy mujj mujj def décompte yi woon sax trois cent mhm. donc mu mel ni ñu bëri ñu ngi ci biir làqatu ci société bi gisaguñ leen gisaguñ leen gisaguñ leen gisaguñ leen Mhm. mu nekk lu lu lu lu doy waax léegi li nga xam ne moom mooy euh, ci côté euh, prise en charge bi euh, toppatoo beeg yooyu noonu yëpp lépp ça se fait au niveau de du CNTS est-ce que parfois du laaj ay peut-être intervention chirurgicale ak yu demee noonu est-ce que dina am cas façon yooyu. bon ma ma leeral tey bu ñuy wax synthèse. c'est mhm. parce que garab yi ñuy jël lu ci bari synthèse la nekk. Mhm. mais bu ñu réeree mbir tamit euh, dëgg la da nga am mais tamit nit nga. Mhm. yeneen feebar mën na daal man nga mhm. war a wekki sa bëñ. Mhm. wala nga war a def opération. leneen ak leneen loolu yëpp balaa ñu koy def il faut dañuy tenir en compte ci feebar bi. parce que tey booy wekki sa bëñ duñ la ne rek demal wekki sa bëñ noonu nga dem rek ñu wekki la parce que boo wekkee ba ñëpp xam ne day naaj. d'accord donc li la war mooy balaa ngay wekki sa bëñ nga dem ñëw fii wax leen damay wekki. ñu tegtal la wax la li nga war a def war nga jël facteurs yi ak xam naag leneen ak leneen nga war li nga war a def moo tax tey c'est vrai que synthèse la ñuy suivre mais mën naa ne corps médical yëpp am nañ ci wal mm-hmm. parce que tey boo boo sañee ba am problème mu tànk mu banko nga war a dem defi rééducation pour récupérer waat li banku noonu ki lay defal rééducation bu xamul ne hémophile nga hémophile nga du la jël ni mu la war a jëlee mën na la gaañaat sax o lieu que mu ay geste bu hmm. exactement hmm. donc naaj ci naaj boobu nga fexe woon ba mu arrêté mu ñëwaat tey bu dee dentiste la ma demee rek mu buddi ko te dañu mu jëluñu matukaay yi ci war maanaam jël facture ak yeneen mun na la andil beneen problème bu dee opération nga war a def mu ngi noonu loolu da lay war na rek tey c'est vrai que centre ñu suivre mais tey corps médical bi yëpp war nañ xam. hémophilie du ma ne sax xamuñu ko mais war na war nañ ko gën a mën a xam gën a mën a xam tey hémophile bu ñëwee ne la hémophile laa naka laa koy jëlee naka laa koy jëlee change ak bu fekkee tamit dafa war a woote mu xam nan la war a woo ko que ñu jox ay ay ay tegtal yu leer. Mhm. gis gis nañ ne tam période bii nii euh, ndax Covid 19 bi tax na ba euh, ci hôpitaux yeeg yooyu booy seet sax euh, daanaka yeneen maladies yi sax tem ñu dem ba xaw ko bàyyi tuuti gannaaw ndax ñëpp ngi concentré wu ci coronavirus bi est-ce que yéen mm-hmm. sentiroo leen loolu. budul sax budul sax coronavirus bi parce que boo xoolee hémophilie tey mën ngay dox nga jël. juróomi nit nga laaj leen hémophilie dana naan luy loolu. Mhm. tey c'est vrai que ñu ngi sensibiliser ñun ñoo koy commencé xam mais man dangay des fois dangay bon dangay dem ci benn euh, euh, hôpital wala je sais pas centre de santé si surtout ci dëkk yu nekk ci kaw yi. hémophile la mais dinañ ni lay ni lay jëlee yow après dangay toog dangay xoolaat sa bopp danga naan mais man li ma am nii li mu doon. Mhm. parce que peut-être information bi war a jàll ni ko war a xamee. xamuñu ko jàll loolu. certes ñun ñu ngi def ay jéego ñu ngi ci wax mais xam nga ñun tamit dañuy def avec les moyens du bord. Mhm. ñu am rek moom lañ mën a utiliser pour mën a jàllale information yi ba tax na dañuy ñu ci bëri tey ñuy jaar ci médias yi wala ci réseaux sociaux yi ni ma ko waxee sax mais tamit lu mel ne médical bi tamit war nañ ci gën a gëstu. loolee tey euh, ministère de la santé war nañu gën a jàppale pour que information bi gën a law ñu mm-hmm. ñu gën cee jot bu ko defee ñu xam ne feebar bi lu existe la mi ngi fii mm-hmm. te nii lay demee mm-hmm. voilà daanaka li des ci émission bi bariwul Abdoulaye Loum mais peut-être tey jii nga ñëw ci li nga xam ne moom mooy wàllub euh, euh, sensibilisation bi encore une fois ak aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy surtout côté nguur gi parce que gis nañu ne comme ni nga ko waxee sànq fii nii euh, maladie non transmissible yi euh, euh, dañ leen xaw a bàyyi côté tuuti dañ leen xaw a parce que gis nga rek déjà effort yi ñuy def ci Covid 19 bi c'est parce que c'est transmissible parce que mais bu doon ci benn nit wala ñaari nit lay yem seen yoon du ci nekk donc mu ne mel ni système de santé bi c'est vrai que mooy doxee noonu mais mm-hmm. est-ce que jarul tey tam matul tey ñu daal di changer waat mbir yi parce que Covid 19 bi dafa wone les failles du système. Mm-hmm. Mm-hmm. wane na lay faille du système te te boo gisee euh, bu ñuy wax ci Covid 19 ñi ñuy ñi ñuy gën a wax sax ñu moytu mooy ñi nga xamante ne dañu dañu am dañu am euh, feebar yooyu. Mm-hmm. donc loolu da lay tey seen seen seen niveau d' exposition. par rapport ak non seulement Covid bi mais de façon générale. seen parce que euh, loo xamante ne da ngay dund moom la. dul benn choc boo xamante ne da ngay da lay dal nga dem ñu bind la ordonnance nga naan garab yi mu bàyyi. Mhm. mais loo xamante ne da ngay dund ak moom sa sa sa girig dund. Mhm. Euh, ba ba ngay laaxu ba ba lay sàng suuf da ngay nekk ak feebar boobu. Mhm. donc war nañu gën a gën a gëstu gën ñu bàyyi xel ci ñun ñi am feebar yooyu de façon générale mais de façon particulière tey bu ma jëlee misaal dama doon déglu benn interview rajo. ñuy wax ci mbas bi bay wax. Eh, ñi nga xamante ne ñoo gën a exposé mais kii laaj bu tontoo wax eh, jël exemple hémophilie ak yeneen ñaar wala ñetti feebar da ngay gis ne bu ñuy bu bu bu journaliste bi di poser question dafay ñëwaat ci ñetti feebar yooyu. Mhm. mais tout le temps hémophilie da koy bàyyi. Mhm. parce que xam naa maîtriser sax hémophilie. exactement. Mhm. mi ngi noonu. donc loolu doo doo ko jàppee peut-être xam la. Mm-hmm. mais tamit loolu ci lu ñu war a ay ay ay yu ndaw la mais loo xamante ne sa lu am chance la parce que balay wan ne peut-être kii di wax bon du ma ne maîtriser wu wu ko parce que xamuma ko. Mm-hmm. mais le fait que muy buñ ko waxee eh, ñeenti maladie wax hémophilie mu waxaat ñett yi bàyyi hémophilie da ne kii peut-être à l'aise ci hémophilie. Mm-hmm. kon loolu da lay wax ne rek am na benn niveau d' information boo xamante ne ñàkk na. Mhm. te tey ñun bien vrai que ñun ñooy association ñu ci yem mais peut-être tey ministère de la santé loxoom fi mu mën a àgg ñun lo suñu loxo mën a fa àgg. Mhm. donc dinañ ñaaxaat rek ñu gën a gën a yokk sensibilisation bi impliqué ñu si ñun tamit bu ko defee ñun ñuy xam nan ñu ñuy doxalee ñu mën leen ci jàppale bu baax parce que ñun loolu rek mën ñu tax a voilà dernière question bi mooy posé du moo mënuma ko ñàkk posé ñu ngi ñëw ci weeru koor. Mhm. Euh, tey am na ñoo xamante ne am nañ ay feebar yoo xam ne koor daf leen di wàcc. tey lan mooy peut-être euh, hémophilie seen mhm. maanaam euh, taxawaay ci ci koor gi est-ce que duñ leen dañ leen permettre ñu woor est-ce que dinam am incidence ci seen wér-gu-yaram ak yooyu. ci sama yaakaar naa ne du ci du ci am incidence parce que man mii di wax ak yow damay woor. Mhm. man mii di wax ak yow damay woor waaye am na fooy àgg tamit comme ni ko médecin bi waxee foofu ne boo fa àggee ci feebar. Mhm. da nga naan mënatoo woor parce que garab yi ngay jël moo tax. Mm. donc man damay jàpp ne tant que euh, tey àggoo ci niveau boobu. Mhm. Euh, man fi ni may defee mën nga mën nga woor mais am na foo xam ne boo fa àggee moom. Euh, par rapport ak ñu la médecin yi di digal. Mhm. dañ lay wax carrément ne il faut que nga arrêté woor gi parce que il faut nga jël garab bi ak garab mhm. boobu àndul ak. àndul la koor mhm. àndul ak koor. voilà dañ dañ lay may rek Abdoulaye Loum nga tàggatoo ak mbokki auditeurs yi lancé waat say say message waaw di leen gërëm di leen sant ah, parce que tamit euh, may nga ñu occasion ñu ñu waxtaanee hémophilie yi. ñu wax tamit suñuy mbëbët wax li ñuy xaar ci ci ci autorité sanitaire ci jàppale benn dimbali mm-hmm. bi may nga ñoo tamit euh, ñu waxtaan ak auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu ñu ci xam feebar bi ñu gën a dem gëstu pour gën koo xam ñi ko ci xamul dem gëstu pour mën ci am ay ay leçon mm-hmm. euh, te tamit di ñaaxaat di ñaaxaat euh, ministère de la santé ci ci affaire émotionnelle parce que garab gii ñuy wax ñun facteur lañ koy woowee mm-hmm. ñu ci dimbali au moins ñu mën ci ñu ne quantité bii kat état Sénégal dina na ko takk na ko fii pour hémophilie mhm. bu ko defee ñaanu moo ko yàlla parce que tamit man man en man laa koy gisee. nit ki mhm. da lay may rek te ki lay may xamoo kañ lay xëy. banque loxoom parce que te bi ñu bi ñu bi may xam association bi ba léegi ba ni ma ci intégré ñooñu ñooñu may garab. Mhm. ñooñu ñoo ngi may garab naam sax euh, ministère de la santé defoon na benn commande daaw xam ne daawaati jéeg mais boobu ba léegi amaatu mhm. te commande bi ñu jàllale woon su ma juumul jeex mhm. donc buñ ci mënee am benn régularité ñu xamante ne dañ koy pérenniser ñu xam ne lii au moins mi ngi fi suñu xel mën a daal ci coté boobu ko defee leneen ñu mën ci ànd ak ci sensibilisation bi ak ci euh, joxe information bu ko defee ñëpp mën si jot di la remercier yow tamit. Mhm. parce que vraiment may nga ñu may nga ñu tribune bu ñu mën a waxee. Mhm. ak rajo bi nga nekk. Mhm. en tout cas ñun loo lay remercier bu baax a baax encore une fois Abdoulaye Loum ñuy fàttali ni. yow yaay njiital association bi ëmb ñi nga xam ne ñu ngi dund ak feebar bi nga xam ne moom mooy hémophilie ñu lay mm-hmm. remercier encore une fois bu baax a baax di la jëfal ci disponibilité bi di euh, ci profilo di remercier aussi Anta mu nekk euh, une femme très brave jàpp lool ci feebar bi nga xam ne moom mooy hémophilie bi ak lutte bi nga xam ne am na ci ñu leen di nuyu yéen ñëpp ñi nga xam ne nekk ci association bi ak waa CNTS également di jaajëfal auditeurs yi ñu doon déglu ci la 97.5 ñuy fàttali ni mën ngeen déglu waat émission bi ci www.rewmi.com wala ci sunu chaîne YouTube di Rewmi officiel voilà di leen dig dajee rek euh, vendredi prochain incha allah Ouleymatou Diallo moo nekkoon ci kàddu gi euh, beneen invité lay doon ak beneen thème ci la 97.5.